xam nga am na ay jamono am na ay jamono Ousmane Sonko demoon Touba ne xalif bi euh, manifestation mars ñi ci gaañ yëpp ay murid lañ gars yu bëri ñaawlu ko jàpp na dafa bëgg a jaxase xëy na kilifa gi ak euh, euh, voilà takk dereg yu ne mel mais tey ji aussi les propos du président de la République kilifa dem ba ci moom it ñu toll ne famille laaye naan leen ay eh, dañoo war a sàmm kilifa diina yi wala ñu nangu ñuy li ñuy laa maanaam c'est c'est mal placé en fait. li mu war a def mooy def ko sans pour de de le dire. xam nga beaucoup de choses se sont passées. Mm-hmm. depuis ces deux dernières années. c'est qu'il est-ce qu'il de faire dégg président Macky wax si tey su si waxee rek c'est parce que il est temps moom mi nga xam ne moo jiite suñu réew vraiment tamit mu yëkkati kàddoom si li ni mel. Mhm. parce que tamit nag nous sommes en train d'assister vraiment à une perversion de cette jeunesse bi nga xam ne man dafa jéggi dayoo te tamit dama jàpp ni ñun mun nañu politique sax les politiques sont minoritaires dans ce pays. gis nga les grands ñu ngi seen tey soo xoolee sax ñu naan 500000 la ñu rey 500000 voix la kii am Sénégal fait plus de 17 millions d'habitants. te ñiy voté ñu ngi seen kër politique yi ils sont minoritaires léegi lan la ñuy wooteel mooy xam nga lan la il faut vraiment qu'on qu'on qu'on cesse de d'instrumentaliser cette jeunesse les pousser à la faute pour après nag ñoom seeni famille di am problème. parce que tey su ma toogee si réew mi. Mhm. barki de moo Ndiaye ma toog tey benn leader muy Ousmane Sonko. ay terme péjoratifs yoo xam du ma si dellu nga ni d'accord tey man yaay laa am naa ay bant. Mhm. nga ni d'accord xale yi dem leen ngan ut leen ngàndaay ut leen ay armes. dem leen sànjaafu tey ñi nga xam ñooy force de l'ordre yi soo leen demee soo leen fa deewee seen waajur yi dinañ juraat. Ousmane Sonko moo wax loolu. mais fii nga nekk Sénégal. Ah, donc oui ma waxee. bu uh-huh. dee sa yaay juraat. mais yow mais kon Mamadou vous n'êtes pas de bonne foi. Ah parce que man ak yow ñoo bokk Sénégal bu ñu nekk. fekkee da nga nekk vraiment di jéem a. a defaraat non di jéem a defaraat. je nga xam ni c'est tellement malsain c'est péjoratif ba nga xam ne nit ñëpp ko condamné. Mhm. ku nekk ci camp ku nekkul ci camp su ko condamné te yow nga ñëw ne da rafetal il a juste mun naa ni répété lu nit ñi wax loolu vraiment pour man. c'est ça loolu moo am beneen bi mooy damay wax. non non bul bul tëb loolu bul tëb loolu. parce que yéen da ngeen ko bëgg wax loolu mu waxul en maanaam loolu du ay propos da koo reprendre ko mais ça vient pas de lui. c'est un xam nga tey man man du ma toog di reprendre ay wax yu. voilà loolu je peux le comprendre. yow mii Mamadou Awa Ndiaye. Mhm. doo toog di reprendre wax yooyu. Mhm. su désolé. Mhm. donc nag tey foog naa ni loo rafetal rafetal rafetal. gis nga lu ne fàng nag lu ne nag kenn du ko jeex. li nga reprendre loolu moo am. te fa en tant que maire man ñaanuma yàlla kuy pouse sama doom à la faute. ba dara fekk ko si. Mhm. après ëllëg si biir ñu naan ma war nga juraat. Ah, donc xam nga fan laa bëgg a waxee foofu. gis nga nag il est temps vraiment comme ni ko président di di defee rek qu'on remette de l'ordre mhm. dans ce parce que en quoi faisant mooy xam nga tey les forces de l'ordre la justice ils ne font qu'appliquer les lois. Mhm. lois yooyu ñuy appliquer xam nga kan moo ko voté le peuple peuple boobu xam nga ñan la ñi nekk assemblée nationale les députés des députés élus démocratiquement qui qui nous représentent nous. ñu voté seen i loi moo tax foog naa ne barki dee moo ñaay li xew bu mu amee ah les force de sécurité et de yi nga xam ne tey Sénégal ñoom suñ fi amul woon sécurité du am. ah mais léegi li nga bëgg a xam suñ fi amoon du ma jógee sama kër. ba may ñëw léegi dama romb si corniche d'accord s'il vous plaît ay jeunes di di def sport. Mm-hmm. ki ma àndal ma ne ko vraiment Sénégal nag c'est un pays euh, qui en sécurité pourquoi parce que am na ay dëkk. Mm-hmm. kenn sañtu génn sa d'accord léegi man li ma bëgg xam mooy yéen li ngeen di condamner cette violence cette façon de faire est-ce que nekku leen ci dans la mesure euh, un peu par euh, à gauche et à droite Ousmane Sonko il en a parlé par rapport ak euh, bi ñu ko génne ci otom nee na pour le sauver d'une mort certaine ndax waa APR yi ñu ngi woon ci kanam ay nervi yor ay ngànnaay bëggoon a jël ba kanam. xam nga moo tax ma ne la vraiment euh, c'est vraiment malheureux et déplorable. Mhm. de toujours être dans la manipulation. beneen bi damay attirer attention jeunes yi parce que ñoom laay waxal xam nga ce jour là lan benn jàngat laa si am yow tu demandes à nos enfants à d'aller vraiment se donner à la mort. non non non d'aller parce que démb yow. yaa démb wuy ma démb yaa ngi woon démb yaa ngi woon di seetaan pur. lan nga dégg lu mu wax xale yi yéen ngi nii armé wu leen jël leen ngàndaay soo leen demee ngeen sànjaafu gendarme yi sànjaafu policier yi ñu dem fekk ji président jëlee ko fa. loolu la wax mais yow. mais il reste encore libre tu es dama ne dama ne dama ne man leneen laa xam ne dama ne. non soo bëggee non soo bëggee ma génn la léegi non non non je peux sortir la vidéo tout de suite waxuma loolu dama ne dama ne li may wax moom li may inventé bàyyi ma yeggali mhm. dama ne Ousmane Sonko il a dit ça oui et là il est encore libre de ses mouvements kon dëkk bi on est pas en sécurité non non moo tax dëkk bi ma wax la xam nga la dëkku liberté la non loolu loolu loolu c'est grave xam nga tax dëkku liberté la fii la ñuy mars quand il y a eu ces 14 morts c'est la faute à qui à Ousmane Sonko qui a appelé à l'insurrection ñi dee ay bal moo ma waxaat la beneenu li nga ma damay revenir aat si li xew barki démb si euh, tunnel bi tey tu demandes à nos enfants à nos frères et sœurs de sortir d'affronter les forces de l'ordre tout mhm. temps nga ni soo demee rey la seen bopp mais yow bi nga xam ne yow yaa di tout le temps woo ñu génn di di def euh, li ba force de l'ordre yi ñëwee force de sécurité yi ñëwee yow loo def yow yaa jébbal sa bopp ñu livrer la sa kër. lu mu waroon def. mais kaay mox la fekkee yow tout le temps da ngay woote ngóora di woote fitna foog naa ni sax soo ñëwee tout le temps tu tu défies la justice foog naa ne am na benn taxawaay bi nga xam ne tey fekkoon da ngay ni yow vraiment yow li ngay woote moo nekk si yow li ngay naan tout le temps les jeunes dem leen xeexi soo nekkee force de l'ordre bi s'engage ko euh, xeexal ak moom foog naa ne jour boobu moom taxawaayam xam nga lan la dafa war a jox cette jeunesse une autre lecture xam nga ban lecture mooy wane kii nii dara jaralu ko bakkanam dara jaralu ko liberté lu mu soxla mooy lan nekk si jàmb donc xale yi nañu conscient xam ne ki lay woo si fitna moom xeex xaajul sa biir dugg si fitna beneen bi tamit damay wax j'en profite vraiment pour remercier ces forces de sécurité tey ñooñu ñoo tax tey Sénégal egg fii tey damay bëgg vraiment. fi ñu toll ils n'ont fi ñu toll dans la bi ñu ko interpellé. xam nga tey euh, yow yaa ko wax léegi ku ñëw nga nekk dans ton véhicule yow nga toog dégg ñun ñëpp ñu setaan mu ne y a des nervis devant man nekkuma en sécurité même si tu roules dans de cent cinquante ou deux cent millions. mais benn voiture bip wala GIGN. Mhm. suñu ñëwee ngay la yow yaa nii da nga jàpp ñu nekkoon en sécurité ñëwal nga dugg ñu dem ngay bañ looy bañ. mais la manière a été forte. mais loolu loolu même si la. manière mais même si la manière a forte mais loolu yoon daf ko may ses force de sécurité parce que il a refusé. de coopérer yoom daf leen ko may loolu noonu. du c'est des lois qu'on applique du leen li nga xam ne dañ ko ñëw non non c'est pas traumatisant c'était risqué ni ñu tojee vitre bi mënoon nañu tu sais ce qui est traumatisant ce qui est traumatisant c'est quoi le fait que nga dem dans les Total dans les Auchan dans les Shell dans les magasins nga koy toj ay perte de biens yi nga xam ne plus de. trois cent millions noo déglu ma rek noo déglu ma rek su ba paree ñu wax y a des pertes perte yi nga xam ne euh, financières yi nga xam ne à des centaines de millions tey emploi perte d' yi nga xam ne à cent cinquante emplois su amee loolu loolu moo gën benn vitre buy jar deux cent mille. je suis désolé quand même mais c'est eux parce que loolu moo xew Sénégal comme ça vous condamnez mais loolu moo loolu moo xew barki tamit loolu moo gën a patent loolu moo gën a récent foog tamit ñun sénégalais vraiment mooy yu mel ni bu amee ay pillage daf ciy rax maanaam des sénégalais yoo xam ne ils ont faim ak des voleurs ils attendent que ça pour pour bokk je suis désolé ma waxaat la ko waxaat la ko quelqu'un tout le temps qui tient un discours tel que bi mu tenir démb chaque fois di inciter ces jeunes à la haine mm-hmm. au non-respect des de de l'état de droit au non-respect de nos forces de sécurité au non-respect de nos institutions. Mhm. naan dem leen taali kër diw dem leen taali kër ba dem leen def lii dem leen taali kër euh, El Hadj gis ngeen ngeen ko maître El Hadj gis ngeen ni ko def ci marché bi donc foog naa ni kooku ji def loolu kooku ngeen war a gën wax waxal lu muy def pointé ko ci doigt ne baaxul que dañoo toj benn vitre bi. nga ngeen di bale buntu kër du ngeen bale seen buntu bu pare. si naka ku ci mel ne Pape Malick Ndour dégg wax Ousmane Sonko keroog. mais mais Pape Pape boo deewee ñu doon say jabar. oui mais Pape Malick wax jooju teggi newu na Pape Malick Ndour il était dans une émission c'est son point de vue moom moo c'est sa communication sa langage moi ça ne m'engage pas. non loolu gax mooy. non non non non non il faut qu'on communication opposition bi ngeen di dénoncé. non xoolal gis na gis na la gis na la gis na la Tidiane Camara lu mu wax Sonko dañ ko war a rey. oui ma Sonko démb. am na ko nañu taal wal fajiri oui ma oui ma fii mosoo toog le président Macky Sall avant accession au pouvoir. Mhm. mu naan nañu dem rey ji di am un projet de guerre. qu'est-ce qu'il a dit d'Ablaye Wade un projet de guerre qu'est-ce qu'il a dit d'Ablaye Wade nañ ko déloger palais. xam nga le xam nga le projet qu'ils ont. Mhm. ñun sénégalais yi conscient ñun sénégalais yi responsable foog naa ni c'est à nous de jouer un rôle essentiel tey ci histoire du Sénégal parce que tamit nag fi ñu jëm ne année électorale bi ñu jëm nii non du xeex rek pour ay Benno Bokk Yaakaar wala président Macky Sall fii déedéet mais dañuy xeex pour sauver nos enfants dañuy xeex pour sauver nos frères dañuy xeex pour sauver nos mamans. parce que le projet qui est en train ce projet ce projet qui de vendre euh, vraiment euh, Ousmane Sonko à au Sénégal tey loolu pour pour man xam nga la la déstabiliser ce pays. mais man li ma xam mooy li ngeen di xeexee pour sauver Sénégal loolu laa comprendre en fait. mais a nga xam ne conscientiser leen. ñi leen tey le projet oui ma oui ma le projet. on tey euh, les urnes d' accord c' est bien beau mais xam nga lan moo ëpp solo le discours xam nga lan moo ëpp solo la tenue xam nga la moo ëpp solo ni ki sa taxawaay. loolu dafa am solo. gis nga tey gis nga gis nga tey discours ak de mhm. taxawaay. Mhm. le président Macky Sall mais j'en nag si li nga wax nii vraiment pour euh, sargal delloo njukkal sax le président Macky Sall. non avant loolu ñëwal ci non non non parce que dama dama dama dama loolu dama la si def c'est important xam nga barki Demba Ndiaye la ñu assisté au président Macky Sall mu doon dem Addis Abeba ko fay sargal tey sur le plan diplomatique laa la wax Sénégal dafa am une grande avancée. Afrique. mais loolu c'est dommage Afrique oui Afrique Samba wax xam nga euh, dama wax leen tey su le plan diplomatique. Mhm. da nga war a sant président Macky moom mi nga xam ne moo élevé la voix de l'Afrique au sommet. bàyyi Sénégal tey ba ñu demee ba toog ba ñu demee ba toog guerre Ukraine russe pays africain wala l'Union africaine mosul dugg si dans ces types de conflits président Macky Sall dem toog jouer fa rôle bu important. d'accord tey le sommet G20 depuis des décennies la ñu bëggoon l' Afrique intégré ko dans le g tey ñu ngi si biir loolu xam nga lan da nga ko war a santé sa président Mamadou Awa Ndiaye beneen bi xam nga lan laa beneen bi xam nga lan laa lay wax le président Macky dans toute la sous-région partout y a eu des da si taxawaay taxawaay am solo. d'accord naa a wax dama la bëgg wax rek que nous avons un président bi nga xam ne tey il fait la fierté des Sénégalais mais la fierté des Africains loolu tamit c'est une parenthèse bi nga xam ne bëggoon naa ko si wax beneen bi ma wax la gis nga Mamadou Awa le président Macky Sall dem nekk na opposition ba jël réew mi mais mosoo dégg si àddina mu tenir ce genre de discours haineux xam nga affaire dafa dem ba nekk sa affaire de xeet ak xeet ethnie ethnie affaire de reli affaire de religion affaire de euh, confrérique mais man loolu si si projet Pastef rek la il ne tient pas tey fii la ñuy toog yow yaa toog yow yaa toog dégg un responsable de Pastef mm-hmm. tout comme moi wax ni ñoom leur projet soo leen seen article tel lu si am mooy suñu jëlee réew mi lépp li nga xam ne mooy kilifa diine kilifa aada kon ñun dañuy nekk maanaam nee na di jaamu ay nit loolu ñoom dañ koy dindi. mais il a raison. mais il a raison loolu. waa loolu yàlla moo ko njëkk a tere ku nekk sa gëm-gëm xam nga ni ki ñun ñëpp ñoo gëm suñu borom subhanahu wa taala. Mm-hmm. je mais tey dafa am lenn li nga xam ne fii li ñu juddu fekk ko fi gis nga ñi nga xam ne ñoo nekk les Layen les Tidiane les Mouride ñi nga xam ne ñoo nekk Gunaas Medina mhm. Gunaas Daaka ba ñu nekk lugo famille omarienne mhm. Taaleen ñooñu fii lañ ko fekk te ku si nekk nag ku si nekk nag da nga fi jouer ku fi nekk nag da nga fi jouer un rôle très important si mhm. yoonu l'islam c'est vrai donc tey soo jógee tey soo jógee tey nga ni ma dëgg la ñooñu ñëpp comme ni ko Sonko waxee depuis le début tey su ma nekkee euh, président de la République gàmmu du amati. Sonko ma wax loolu. mais ma génne la ko. <laughs> non non fekkee sa fekkee sa non non fekkee rek tu peux me permettre ma génne la tout de suite le la. non on va perdre du temps. d' donc pour wax la xam nga may wax je parle sur les faits. Mm-hmm. nekkuma fi di waxantu. donc ki nga xam ne yaa wax loolu je pense qu'il est important vraiment nous politiques nekk dans le camp de la majorité présidentielle. Mm-hmm. vraiment conscientiser Sénégalais conscientiser nos enfants pour wax leen carrément vraiment. c'est un mauvais choix de topp ce, ah, ce genre léegi mën naa euh, emplacer une comme dit le président Sall yaa ma koy jaay comme quelqu'un boo xam ne il est correct il est très poli il est discipliné dëgg la nit ku yaru la du wax jamais lu déplacé mais par rapport aux actes qu'il pose l'histoire retiendra que c'est sous Macky Sall que des candidats la présidence ont été écartés euh, n'importe par, des moindres Khalifa Sall Karim Wade Ousmane Sonko ce euh, ñu ñëw sunu thème bi fi candidats yi nga xam ne am nañu doole jàpp nañu mën nañu nekk président kenn sa mbir leeragu ci muy kan xalifa Sall am na lu ne ci bopp bi Karim Wade pareil Ousmane Sonko des procès l'attendre seen candidat yéen Macky Sall il avait promis de faire deux mandats jeexal na ko donc Sénégal situation bu mel ni ñu ngi koy soog a dund et c'est su Macky Sall. mais xam nga lenn rek laa la mën a wax xam nga tey le président Macky Sall mënu leen wax wax wax wax wax ba nettali géntam moom. mënu leen wax ba nekk dans sa tête. moom xam nga lu mu wax. Mhm. nee na le moment venu il va communiquer la dessus léegi yéen wax yéen. mais xam nga lu ñu wax mooy ñun dañoo am yar ñun dañoo nekk nit yi nga xam ne xoolal dañoo xam lan mooy kilifteef. Mhm. tey président Macky Sall man je avec lui. je suis derrière lui je serai toujours avec lui ak décision bu mu munti jël su nee suba suba suba damay poser sama candidature. dañ ciy ànd te commencé nañu liggéey. ñu ngi liggéey pour notre réélection de de notre coalition su nee suba moom mooy candidat bi dañ si ànd liggéey liggéey bu mucc ay tegaat ko à la tête de ce pays mais beneen bi mooy dama bëgg ñu bañ ko fàtte chacun est libre d'être candidat les candidats son les candidatures son déposées au sein du conseil constitutionnel c'est le conseil constitutionnel qui valide les candidatures. mais maintenant il faut que déjà tranché nag. fii laay waxee fii laay c'est parce que vous fii laay pourquoi aller demander au conseil loo mais pourquoi vous ne respectez pas nos institutions. est-ce que Macky Sall les institutions. mais vous êtes en train vraiment de wax ñun diaboliser. que vous êtes en train de perdre toutes nos valeurs. ah oui ñun ñan si ñun ñan en tant que journaliste. da may xas éminent journaliste. su ma la déggee nga ni ma président Macky Sall si boppam moom moo téye candidature yi alors que yow kon yow yaa ngi jéem a décrédibiliser notre conseil constitutionnel. dama ne dama ne et je suis désolé en 2023 un brillant un brillant journaliste comme Mamadou. dama di foog di réfléchir ci régime ci mhm. régime am la ñu mhm. ay candidats ñu nekk candidat présidentiel loolu laa wax. ah bon moom daf leen c'est parce qu'ils ont fauté. tourisme la ñu empêché. non non non non il faut pas nuancer. non non ma lay wax dafa leer il faut pas nuancer. tey ah, Abdou Diouf nekk na fi candidat empêché wu ñu Ablaye Wade Ablaye Wade nekk na candidat empêché wu Idrissa Seck même s'il avait des problèmes avec la justice mais avec Macky Sall. c'est c'est devenu fréquent. Maodo Maodo euh, le président Macky Sall ne fait qu'appliquer les lois. en tout cas c'est une coïncidence troublante. voilà ne fait quoi si tu. te tombewul benn yoon une fois deux fois trois fois jëm ci quatre fois. c'est compliqué yow yow c'est ta perception. non bëri naa ci moroom de. te loolu non non mais mais mais loolu mooy liberté. chacun est libre. xoolal da am propre perception mais dama la mën a wax lu leer. Mhm. il faut qu'on respecte nos institutions le conseil constitutionnel est là pour valider les candidatures maintenant nag xam nga la la. Mhm. faisons confiance à nos institutions faisons confiance à nos hommes politiques faisons confiance aussi au futurs candidats tey ku fi nekk soo waree déposer sa candidature xam nga ndax war nga ko mën a déposer xamoon na war nga ko mën a déposer te jour ba su jotee ku si nekk di ku ñuy rejeter fekkee tu ne remplis pas les conditions. Mhm. dinañ dinañ valider sa candidature donc gisuma lu fi indi coow lii c'est un faux débat sax limite moom laa mën a wax. léegi président Macky Sall euh, sànq yaa ngi wax ay exemple di cité ma ne la est-ce que mën nañu ko boole ci loo boobu dans la mesure où quelqu'un qui nous avait promis de faire cinq ans def ko mu def sept ans quelqu'un qui avait promis que du mës a jël famille am def na ko aujourd'hui on nous parle de troisième candidature dëgg la waxagul mais ne nga bu ne d'accord ànd nga ci ak moom maanaam nit ku mel noonu aussi est-ce que c'est pas un problème dans dans une démocratie. mais comme nous sommes dans un état de droit conseil concerné da ko ni déet mënut a nekk. ça l'arrange. da ngay dem non ça l'arrange ou pas loolu yow pour man Mamadou euh, tu n'es pas habilité à y répondre parce que xam la du moment où que nit dafa nekk vraiment une une une un leader très responsable. mm d'État mu ne dama bëgg réduire son mandat de sept à cinq conseil constitutionnel ko d'accord am na yéene boobu mais dangay dem référendum ñu dem benn élection consultative. ba ñu demee si ponk yëpp si la nekkoon xam nga yéen da ngeen moment bu ponk enfin l'opposition dafa jàppoon moment bu ponk homosexualité et autres alors que y plusieurs euh, plusieurs yi nga xam ne moom lañ moom moo fa nekkoon. mais malheureusement point yooyu avec le temps gisuñu. non c'est parce nga xam nga politique moo grave rek. période boobu mu amee l'opposition dafa ñëw jël si si sur les quinze ou dix-sept points deux points rek. Mm-hmm. jàpp si ba nga xam ne fàttali nañu lépp. ma la pour aw yoon conseil constitutionnel validé ko ñu dem ko. maintenant tey kaay ma wax la su toogee son premier mandat son premier mandat son mandat de sept ans mu jeexal ko mu nekk son premier mandat de cinq ans si le conseil constitutionnel juge que le président Macky Sall est apte à déposer sa candidature ñu war ko valider loolu xoolal je respecterai man cette institution. yéen a ngi beneen bi laay wax. oui ma xam nga lan mooy wax ji tamit nag kaay ma la sànq wax nga ko. te ce sont les urnes sànq ko wax nga ko wax urnes yi ñooy def différence. oui ci ñu ko nangu depuis ñu non dañuy waxante dëgg rek. depuis ba ñu nekkee 2012 à maintenant. Oui. nous avons toujours eu des élections très transparentes. le fichier loolu loolu xëy na yow <laughs> yow xëy na yow su la neexee nga buñ ko nga ko bañ a gis mais le fichier électoral tey la gën a mën a tey la tey la ñàkk benn. benn benn tey la gën a fiable tey la ñàkk benn ñi nga ko doon waxee ñoom di ko di ko di ko ñaawlu di wax yenn yi tey fiabilité ce fichier xoolal foog naa ne tous les acteurs. xoolal l'ont confirmé maintenant nag dama lay wax leen tamit Momadou tey suñu tollee ba sa cappaandaw ba président Macky Sall rek mooy décider te lu mu ñun lu mu munti décider. merci beaucoup man Fatoumata Niang ànd naa seeg moom. di la sant bu baax a baax. di la sant bu baax Mamadou Awa Ndiaye di wax ni rek vraiment ñu ngi rafet rafetlu bu baax tey euh, waxtaan bi mais lenn rek la lay ñaax sénégalais yi que ñun ñëpp nous sommes des politiques mais mm-hmm. les politiques sont très minoritaires dans ce pays. lu nga xam ne ñoo toog seen nga xam ne ñooy les grands électeurs ñi nga xam ne ils sont nañu jéem a def xaj ak seen def le bon choix parce que le président Macky Sall defoog naa ni en 12 ans lu ñu doon xaar si moom rek mooy tey mu yóbbu Sénégal zéro. Mhm. yóbbu ko vingt. tey en 2012 la politique sociale c'était quoi la demande sociale c'était quoi. kuy xamaj électricité te foog naa ne tey kuy dem ba nga xam ne tey yaa ngi euh, dans la sous-région yaa ngi jaay euh, énergie si si si mim si mim lu loolu jafe la toutes ces réalisations qui sont là font que vraiment c'est un c'est le bon choix et tamit c'est le président qu'il faut pour les Sénégalais merci beaucoup Fatoumata Niang Ba ñu koy sant bu baax a baax bokk Benno Bokk Yaakaar nekk présidente du conseil de surveillance bu ACPEX ñu koy remercier ci leeral yi wax na ma lu ko neex mais <laughs> garaawul je prends sur